asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen ndokkeel di jiite ci siyaar beeg niveau bi nag borom pêche beeg mbégteem Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na fi yàgg lool tuwér di siyaare Serigne Sirim Cheikh Abdoul waaye di ko teg ci loxoom nag Serigne Aboul Baraka mi nga xam moom lañ nekk ci këram sëñ Abo moom Cheikh Abdoul Ahad di ko baax di ko bari yitte di ko bari pastéef di koo xam ne foo na ko jàkk rek sa xel dana dem ci ñaari waajuram yu tedd yooyu mu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi waajuram ak wane waajuram bii di Serigne Souhaïbou bi mu ngi ko dippee waaye tamit mu yar ko euh, ñu nekk ci bis bu tedd nag di bis bu Cheikh Abdou Lahad Mbacké di jàmbaar lislaam joo xam ne euh, moo doon ñetteelu xalifa Cheikhul Khadim radiyallahu anhu waaye naka jekk rek dañ ko xamoon ci bëgg Serigne Touba ak itam di yittewoo am mbindam wax nañ ci jamono yi nga xam sax ci la doon jàng euh, rawatina wàllu xam-xam li ëppoon ci lim gënoon di bëgg di ko yittewoo ak di ko mokkal ak di ko jàng moo doonoon mbindum Serigne Touba ak mbind yi nga xam moom lañ def ci moom moo tax wayi suñ mbay jaxate yi da ko wattu woon lool ba jamono yi nga xam ne doon na ko dajale lu sax ngir bëgg ñu gën koo waggar gën ci ak soññee yee ki ci biir nga bëgg gi bëgg ak taalibe tax mu doon ko jàngloo ku mel ne sëñ Abdoulahat Euh, boobu wax na ne am na ci yoo xam bi ñu dajale bari na ci yoo xam ne bu ñu ko mëntoon a am moom Cheikh Abdoulaye Mbacke nekk moom moo ko mokkaloon moom moo ko tari kon moom dafa yittewoo lu jëm ci Serigne Touba ngir bëgg ak cofeel bu mu am ci moom waaye Serigne Touba yi tamit da ko waajal da ko téeñal ndax ba mu euh, ganee jamono muy bis bi ñu fàttaliku euh, Serigne Touba daf cee bëggoon lool. daal di jàngulu xasida gi ñuy wax fës bi safra asanaat mooy ci jamono yi nga xam mooy ci jamono yi ñu koy jox tur wi mooy ba bis ba delsee xam nga fu si safar asanaat ñu ngi ko jagleel soxna Mariam mi nga xam mooy waajur Seydina Isa ca Seex Abdu Lahat waajuram soxna Mariam Jaxate la tudd waaye Serigne tubaab bég ci lool daal di wax sax ñu def ay berne yu bëree bari yu kawe njortu waaye daan ne nag gan ji de am naa ci moom yaakaar. moo tax Cheikh Abdoulaye Mbacke am na jamono dani sama yaakaari baay jooju su ma ko naree tas yàlla naa ko wuute waaye tasu ko benn yoon euh, ñëw na fi tam jamono bi nga xam ne Cheikh Abdoulaye Mbacke Serigne Touba boole na koog nijaayam sëñ Amsatu Jaxate moom mbokkam yi tedd yi sëñ Soy Bok sëñ Abdou Samad sëñ Saalu waaye dafa wax sëñ Amsatu Jaxate ne ko baaxuma sax di jël sama njaboot bu ko boole kenn ngir aada waaye damaa bëgg la ma def ci yow nga def ko ci ñoom dafa am lu bëgg nga def ko ci ñoom sëñ Amsatu Jaxate boole sëñ Alassane Jaxate ngir moom lim féeti woon ci sëñ bi nga xam ne amutoon jot sëñ Alassane di leen jàngal alxuraan sëñ bi woone woolu na ko lu man ñaar yoon ba ñetti yoon yoon mu jëkk wi ci tënk rek ba mu demee mu waxtaan ak ñoom bëgg ci lool ànd ak sëñ Ablaye Jaxate euh, tubarkalla ñu waxtaan mu laaj ko fu mu toll yooyu yëpp euh, daal di koy ci ci tënk rek laay wax ko defaral loo xam ne daf ko wax ne ko dama loolu day fàtte day day mel ne fàtte ci seytaane lay jóge waaye bi si tey danaa leen tàggaleeg fàtte daal di am lu mu jugg daa leen indi ñetti ndab yoo xam ne benn bi lu mel ne ndawal ginaar la benn bi soow la benn lu mel ne lem la bi mu leen ko joxee daa ne jëfandiku leen ci ñu jëfandiku ci bu baax ba mu noppee Cheikh Abdou Serigne euh, Abdou Lahad nee na man booba laa gis ne lépp lu ma tiim rek danaa ko wattu danaa ko mokkal dootu fàtteeti dara moo tax gis nga alxuraanu karim ak xasida yi ak itam xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Abdoulaye ni mu ko doon def day mel ne baat bu mu wax. aaya alxuraan ba ci war a topp day njëkkante ci ay kàddu naan ko fii laa war a tàbbi ci say wax ni mu ko déggee woon ak ni mu ko mënee woon amu ci woon morom waaye beneen yoon yi mu leen woowul woon tam bi mu dikkee dafa daa dugg ci biir génnaat daan leen di jox aw ñam woo xam ne wu yéeme la daan ne ko lii de ñamu àjjana la nga xam ne Sëriñ Blaat Sëriñ Tuubaa ña mosal na ko ñamu àjjana ca boobu mi ngi ci àdduna moog si Ablaye Jaxate booba sax neen si Ablaye ca la joxee mënatuta mos dara dara ci àdduna moom ba ci suukar si sax léeg-léeg dañ koy jox café mu daan ne bu mu am suukar boo xamul lu tax da da ngaa bañ na dara dafa mënut a saf ci moom ndax bi ñu ku ñamal ñamu àjjana ñamu àdduna dootu safati ci yow dara kon loolu tam ngëneel la waaye tam fekk na ñu amoon kaamil bu mu bëggoon a sàkku Serigne Touba am sa waxoon leen ko bu ngeen demee ngeen sàkku ci moom mu jox leen kaamilu alxuraan alxuraan ndax kaamil bi ngeen yoroon dafa am dafa tàmbali di euh, xotti ko biñ ko waxee laata ñu ndax mënuñu ko wax sëriñ Tuubaa ndax sëñ bi boo jàkkaarloog moom xëy ba bi nekk ci moom ak war ma jaag yooyu doo ko mën a laaj ne ndax jàpp ngeen euh, ndax mën ngeen a jàpp ñu ne ko waaw mu ne dem leen jàppite ñëw ñu dem mu jox leen satal ak boppam ñu jàpp ñëwaat bi mu dikkee mu daal di andi ñetti kaamil alxuraan te waxee buñ ko woon dara am na ci boo xam ne moo diggu doomu moo ne gën ta moom lañ gën a taamu am ci yeneen ñaar mu ubbi bu njëkk ba tëjaat ubbiwaat beneen bi tëjaat daal di ubbi nag ba nga xam ne moom la gën a taamu daal leen koy jox gis nga loolu nga xam ne moom ba nekkoon seen xel ko leen si Abdoulaye Diakhar nga xam ne dafa bëggoon ne bii moom moom lañ gën a taamu wowuñ ko sëñ bi de waaye sëñ boobu la leen jox daan ne la nag mayuma leen ko abaluma leen ko waaye dama leen ko lebal li ma bëgg nag ngeen fayee ma ko mooy damaa bëgg ngeen bindal ma alxuraan kaamil alxuraan karim ñu ko fas yéene nañ koo def ba ñu demee sëriñ bi tàggoog ñoom ñu dem mu daan ne kon day danaa leen warlul seen lépp te du ma bàyyee kenn seen lépp maa ko yor loolu la si loolu sëñ Tuubaa ko waxoon sëñ Abdoulaye Mbacke ak sëñ Abdoulaye Jaxate sëñ Abdoulaye Jaxate mu ànduloon ñu daal dem moo tax sëñ sëñ sëñ euh, Abdoulaye xam ni meloon de di joxe foo ko fekk rek muy joxe am na kenn ci koo xam ku ko jege woon na lool euh, Alhaji Mouhamad Mamoun Niang ma sa koo laaj ne ko yow day dafa am loo xam ne am na ñu la koy wax ma bëgg bëggul la koo laaj ne ndax doon yi bëgg nañ koo xam ndax léeg-léeg dañu dikk laaj la dara nga ne man dem man na maa mocc tabandoor maanaam daal yóoru ma dara ci sama poos waaye léeg-léeg ni suuti rek nit day dikk laaj la dara nga yëkkati rek jox ko ba mu jaax mu jaaxle ñuy laaj nag ba xam ñii naan ji nee lay jox ñii naan kii kenn ku ne xamul lu lay jox alal ji mu ne du dara Serigne Touba dafa gaaw kon xam nga li mu ko waxoon ñëwaat na. wane yoon wa ca des ba mu demee ba a bind kaamil foofu sëñ sëñ Touba suñu am wax ko suñu am sotti jaxate daan na ko nag na nga ànd ak sama njaboot googu nga xam ne mokkal nañ kon suñu Abdou Lahad waaye tamit mbokk mi ci des ànd nañ ci suñu soxna boog suñu Saliou jaxate biñ demee fekk na nag sëñ bi def xalwatam bu mujj boobu daje mbooloo mi ba waxtaan ñoom ba noppi ba tëju mooy ay jamono yu mujj biñ demee ñu ne ko sëñ bi dey dafa tëju jamono yi te xam naa ne du gaaw a génn foofu na am ci koo xam ne ci ñoom ci njaboot gi loola xaw na koo metti lool ba mel daal kuy yëglu léegi nag ñu xam ne lii mën na koo andi jafe-jafe ñu def pexe Serigne Touba boo bëggee mu génn ni mu bëggee ni mu bëggee woon Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yëkkatal tàgg bi rek loolu ay pexe la woon wala nga tudd turu Touba ñu daal di dajale kuréel bi rek tàmbali yëkkati xasida yi bi ñu ba yëkkati rek Serigne Touba daal di génn daal di daal daal di laaj ñu daal di koy nettali xaw daana ko de ñoom Cheikh Abdoulaye njaboot gi de ñoo ñëw kon moom woolu na la ñetti yoon ngir yittewoo goo xam yittewoo na leen ko ci gàttal mu liggéeyal Serigne Touba lool nag lu mu def moom Cheikh Abdoulaye day mel ne da ngay mën a teg sa baar fokk Serigne Touba bindoon nga ne daare kaamil Serigne Touba newoon na boo demee sama coffre-fort doo fa fekk alxuraan doo fa doo fekk euh, xaalis doo fekk wurus doo fekk or doo fekk kan jël kitaab wal xadis waa adab laa jama fidat wala jëma saat Serigne daal di taxawal daare kaamil Serigne Touba daan na bil Mustafa li bana xuddu si madrasatan bi ayisul asa wa jaru wa kabadu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam tabaxal na ma daara joo xam ne ku ci tàbbi tàgg ko koog réer ak njàqare si ablaat naal université bi ba taxawal ko taxawaay bu am solo si mu taxaa mi ngi koy la ci war a ànd yëpp yàlla ci loxoom wàllu dëkk bi Serigne Touba ñaanoon na ci mën bi foofu na doon dëkkub xam-xam dëkkub alxuraan dëkkub njub waaye nañ ci nañ ko musal ci lépp luy caay-caay ak càggante wax wa tax mi daari ani fujuur wal faas wal fi dóori si am laa xëy setal dëkk bi wëcc ci ay caaxaan mooy Touba dëkk mooy dëkk boo xam ne ko bëggoon a def caaxaan da ngay nëbbutu soo bëggee tux da ngay nëbbutu boo bëggee def ay ñaawteef da ngay nëbbutu wala nga génn dëkk Cheikh Abdoulaye Mbacke lañ ko war a sant ak yeneen a yeneen ci ay liggéey yoo xam def na ko ci wàllu marché occasion wàllu liggéey ci wàllu ñaxtu ngir mën a jaamu yàlla liggéey mu seta marché ba lépp loolu lay du fi am loolu lépp Cheikh Abdoulaye Mbacke ngir dabbu bëgg-bëggu Serigne Touba mel ni Serigne Touba kon moom la doon liggéey ci wàllu googu muy anam goo xam ne Serigne Touba day mel ne Cheikh Abdoulaye ko doon xaare magam yu tedd yi ko jiitoo muy Cheikh Moustapha nga xam jaayante woon naa moom liggéeyal ko ba mu gërëm ko mu jaayante sax moom ne ko ko war a taxawee muy wàll goo xam ne moom lañ dénkoon Seydina Omar xat addaban naa turan bil huda wa moo ko féetu woon mu liggéey Serigne Touba bu baax nag liggéey bu rëy ci ay kàddoom ak ci waxam ak ci jëfam ba nga xam ne moom Cheikh laa daal boo na ko jàkk da da sawar a jaxasoo moom yiwe gaa tax waaye boo jaxasoo moom da nga da nga ko miin lewet gaa tax waaye loo ko miin miin nag du tax nga yab ko dëggu gaa tax kon yàlla nañu yàlla fayal ñu ko nga njëfay suñu aboo yàlla na ko fi yàlla yàggal lool mu yàgg taxaw taxawaay gi xam naa waxtu wee xadda waaye kon danañ ci gën a xuus jàmbaar lisaan ngi noonu teg na nit ñi ci yoon waxtu wu nekk jamono ju nekk da ne tey bu fi sa tey bu fi sa laat newoon waaye itam lu xew lu nekk ne lii kat Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon na ko ndekke kon moom dafa jiitu woon jamonoom waaye lu waxoon lu nekk day ànd ak alxuraan ci alxuraan nag jamono ju nekk la mën a am jamono ju ak moom waaye tamit rek ci saw àtte ak loo mën a yittewoo da fekk wax na la ci solution ba noppi kon yàlla nañu yàlla fayal ko ngeen jëf la ñu leen sant baax seen taxawaay rafet na lool soppee Serigne Abo jërë jëf euh, xam naa ma nit ca laa euh, ko bàyyee <laughs> jërë ngeen jëf sant naa bu baax a baax jërë ngeen